suivre les programmes de vos chaînes préférées de TV KMTV fii ci comme ça et à travers la diaspora donc nous vous disons encore une fois bienvenue à votre émission spéciale Ramadan donc muy à que Dîner. donc du professeur aussi de euh, voir Ramadan Moubarak donc de nuyu vraiment toute la communauté islamique qui weeru le voilà donc émission bi euh, comme d'habitude deux plateaux la euh, deux parties là, mais malheureusement donc rubrique invité bi du si a am parce que nous invité euh, Elage Touré maître coranique ak praticien malheureusement dafa am empêchement motax tax donc en deuxième partie amna dinañu am coach en développement personnel Khadika mu wara donc la rubrique yee sa donc avec le livre de l'auteur mexicain Don Miguel Ruiz wax que votre parole soit impeccable Khadika donc mon type ci euh, régie bi xam dina deuxième partie bi donc euh, la rubrique euh, actualité avec Abdoul Aziz Bodian moo koy def ñu waxtane ci dialogue national bo xamantene président de la république qui wara organiser donc fan yi donc rubrique sport bi ñu and ci ak euh, mustafa Sarr donc ñu gën ko am ci coach Tafa moy coach adjoint académie de foot féminin jaamu Khalibou yi bu Kër un ñu ñu war a ci sport local national ak euh, international. voilà donc ci partie technique bi c'est l'infatigable commando côté régie Chingo moo fa ak euh, Khadika coach en développement personnel.

organisme day xaw a kii la mais bon ñun ay jàmbaar la am daa ñeme koor quoi. yaa ngi koy yëg comme ni ko Demba Diouf yaa ngi koy yëg normal. waaw maa ngi koy yëg bu baax a baax. voilà donc maa ngi ñëpp ah. ñi ñuy déglu di nu seetaan aussi. mais naka koor gi ak sport bi tamit. waaw koor gi ak sport bi dina neex dina metti aussi quoi parce que xam nga bu biir defulee dara nga war a dem entraînement yenn séances yi dañ koy wàññi yenn kii bi lu mu antan ba créé ñuy ndogu ba pare quoi. parce que sa yaram bu bëriwul suukar lool pour nga def ci yenn yi day xaw a métti trop. tout à fait waaw mais alhamdulilah rabbil alamin comme ñun ñun dañu ko wax trop. Mm-hmm. yooyu du doon problème xam nga bokk ak séeréer ak joolaa yi ñëpp ñu ragal ko. non non non man bokk ma ak joolaa voilà donc ñu démarré émission bi ak rubrique actualité Aziz Bodian comme ni ñu ko annoncé ci sommaire bi donc tey euh, lan nga ñu indil mooy maanaam dialogue national. dialogue waaw dialogue national bien. dialogue national dañu andi parce que boo xoolee semaine bi yëpp moo nekk actualité quoi. Mm-hmm. Euh, président après bu mu gagné élection yi. Mhm. woote na pour un dialogue national. Mhm. pour ñu jéem a trouver consensus xool mhm. parce que bu ñu xoolee. élection yi passé élection présidentielle passé bëri na coow bëri na coow à chaque fois xam nga fichier électoral bi def nii def nii. mu bëriwoon coow quoi. donc euh, yàlla bu mu defee moom mu gagné mu woote dialogue national mais bon dialogue bi li si xaw a doy waar nag mooy ñii dañoo ne ñëw ñii ne duñ ñëw. xam nga poser ay conditions. xam nga day xaw a pour ñu trouver ben consensus. bon buñu ñu opposition bi. bon boo jëlee ku mel ni Idrissa Seck mhm. euh, Sonko ñoo xam ne ñoo gën a nekk si kaw opposition bi bon mhm. ñoom nee ñenn ñi nee duñ dem. Mhm. bon am na tam beneen phase opposition bi comme baat euh, li mu jaay seen nañ ko. dinaa dem mais balaa maa dem il faut ñu libérer Khalifa Sall. donc loolu lépp day xaw a métti pour gars yi trouver benn consensus. waa PDS ñu ne ñoom dinañu dem mais il faut que Aly jóge fi. jóge te Aly tontu mu ñu leen kon de ñoom duñ ñëw parce

gars yi dañu am benn deal bu ñu teg mooy le deal de Conakry le mhm. deal de Conakry yi wax donc kenn xamul quoi mhm. kenn xamul instant bi si lan ngay taxaw mhm. euh, pour pour pour dialogue am parce que opposition bi nee il faut ñu am benn personnalité neutre bu ñu xoolee euh, deux na benn bu fi nekkoon mais après gars yi ñu ko doon décrier ne non dafa faral que euh, Macky genre yooyu noonu donc c' est un pour ñu trouver benn consensus boo xam ne ñoom ñëpp nañ ti nañ trouver benn terrain terrain d'entente boo xam ne ñu donc man je ne sais pas bu ñu associer forum civil bi ñu top ñoom ñu ñu ñom ñu organiser ko. Mhm. waaw ben instant quoi parce que c'est un peu difficile hein c'est un peu difficile. c'est pas un peu difficile quoi dégg aussi que politologue journaliste Babacar Justin Ndiaye ci émission dem Faram Facce non jeudi passé c'est Pape Ngagne Ndiagne moo ne carrément que le journal national camp au carrefour des termes de référence du refus de la roublardise et du deal mu dem aussi waxat aussi que euh, Abdou Diouf warul manam bok ci dialogue national parce que Abdou Diouf bu koy da interpeller ci Sénégal. Mhm. ci événement 23 juin yeneen événement yi. du nang wax day wax carrément j'ai pris pour mon pays kooku tey buñu waté nan day waxat ci ki pour mom lolu c'est contradictoire quoi. waaw bon Abdou Diouf moom man sincèrement dama ko senti aussi Sénégal quoi de bu mu fi jógee dafa dem France tok fa nek francophonie après mu ñëwaat Sénégal kenn du ko dégg ci dara Sénégal quoi. donc tey bu ñu bay dialogue pour man mëna naa neutre quoi mu bàyyi ñëw suñu Sénégal parce que bu mu demee daf ñoo bàyyi carrément. Mhm.

opposition bi dañ dañ dañ si bokk. parce que boo xoolee ils ont 42 pour cent 42 pour cent c'est significatif quoi. donc balaa nga jël benn décision boo xam ne day concerner Sénégalais yëpp war ngaa mën a toog woo Sénégalais waxtaan ak ñoom woo opposition bi ñu toog ñu waxtaan. mais tamit day métti parce que opposition boo ne wooy ñoom dañu amee réserve il faut kii jóge fii mm-hmm. il faut nga libérer Khalifa Sall il faut nga Karim Wade ñëwaat mm-hmm. donc

contradictoire fi jàppal fi génn fële mm-hmm. donc mais nag tey suñu problème majeur euh, Sénégal man xaw ma politique mais li ma gëm mooy ak li may gis mooy politiciens yi seen bopp rek quoi mm-hmm. donc euh, ñun ñi nga xam ne ñu duñu dund politique trop sentir suñu bopp réellement ci ñoom li ñuy doxal mm-hmm. te pourtant que touche boo ci laal rek ñun dañu war a yëg suñu bopp parce que ñun ñoom ñoo ñun ñoo tax ñu nekk fi waaw donc muy Macky Sall muy Barthélémy Dias muy keneen ak keneen euh, nous nañu wane lu lu nous lu lu nekk loo xam ne Sénégalais dinañ ci mën a quelque chose de palpable ba tey amaguñ luñ mën téye mm-hmm. waaw donc l'homme mooy suñu problème quoi donc as comme ne ko suba yaakaar naa dañu war a teg ku nekk ak condition fele maanaam ñu trouver le consensus parce que ku nekk bu des chantage ku nekk bu waxee man bu dul du ma ñëw kii tamit naan man donc finalement déjà les termes du dialogue sont faussés quoi donc euh, euh, te li si gën bizarre ici si gën bizarre quand on dit dialogue national on doit parler économie on doit parler santé on doit parler éducation. mais c'est boo les gens dans sa seulement les politiciens qui en parlent donc est ce que c'est est un dialogue politique quoi. ak ñoom ñu ce que sport dégg ko que politiciens qu'est-ce les enseignants syndicalistes des mhm. forum civil c'est si kenn quoi. donc c'est un peu c'est un peu décevant au Sénégal mhm. tout est politique jóge nañu ci élection dañuy defaat 5 ans yoo mhm. élection la parce que ñu ngi élection 2019 kenn xamul dañ koy dàq. après élection législative day présidentielle day mu 5 ans commencé dialogue bi

boo xoolee Jalgati Sall bi c'est seulement les politiciens kese ñoo si ñoo si wax ah. déggoo benn kilifa diine bu si wax déggoo ben sportif bu si wax. économiste yi non non politiciens kese ngay dégg ñoom ñooy sama yow. Hmm. il faut kii jóge fi il faut kii ñëw il faut diw jóge fi hmm. donc c'est un peu décevant quoi. parce que day les ni Sénégal on a qu'un problème politique pourtant am na yeneen problème parce que sportif yi tamit. a na problème par exemple euh, Tafa coach.

éducation mhm. mënoo tudd am réew guy développé te doo ko wax mhm. te sport bi mhm. mënoo ko wax te waxoo éducation parce que kii dem di def sport donc day dem dañ koy yar d'abord ci ban ci ci baas base lañ koy yar ak ci lan lañ koy yar mooy que moom il faut que mu jàngi soit mu jàng alxuraan wala mu jàng français donc bu mu ci mënta doon rek dafa soxla productions yi delluwaat seen xel ni xale yi ndaw xale yu ndaw yi nekk ci dëkk bi ñun ñoo leen war a préparer parce que ñoo yore réew

ñoom dañuy gis seen bopp parce que dañuy yaakaar bu baax ni problème xaalis la ñu woon mais sport Sénégal li tax doxul mooy ñu ay matériel mm-hmm. te euh, académie yaa ngi fi comme ni ma koy mën waxee école de football yaa ngi fi xam nga amul fenn booy dem ci benn école de football booy dem fekk fa cinq ballons yu baax mm-hmm. alors que don yooyu ñoom ñoo ko ñoom état ñoo ko war a joxe ministère jol jël ko mm-hmm. jox ko fédération pour ñu mën ko tas mais ñi nga xam ne ñii tey euh, reconnaître nañ leen xam nañ am nañ ay këyit Euh, fédération de leen reconnaître mhm. tey ñu mën leen jox ay don ballon mhm. comprendre mhm. mais dañu am problème parce que Sénégal moo te lan ñi ko alors que sport mooy li nga xam ne yu xel yi lëndëmee yu donc dañ ko a dañ ko donc comme nga ko politique par exemple euh, mooy euh, ruuxu bi maanaam quoi wala wala esprit bi. Mhm. Euh, ci réew mi mais esprit bi dafa war dugg ci domaine bu nekk. yaa ngi dégg bi wax léegi le côté politique sportive bi. Mhm. politique éducative bi politique donc politique bi jarul bi war nañu ko yemale ci politique kese. mais dañu war def un dialogue politique ñu yaatal ko ci domaine bu nekk. Mhm. maanaam ñu bañ ko yemal sur les questions politiques. ay élections ay fichiers électoraux ay ni ñuy préparer élections locales. législative boo xoolee ñoom souvent parce que loolu mooy. Ah voilà boo xoo xoolee comme ni nga wax. Sénégal fii ay problème daf fi am mais mm-hmm. même xam nga des euh, bi. même opposition bi. Mm-hmm. des fois ay problème am pare exemple ndox bu mu fi manqué. Mm-hmm. doo gis opposition bi ñu wax si. effectivement crise euh, école crise euh, éducative bu fi amee. dégg nga benn opposition bu si wax ñoom dañuy toog. mais bu élection jotee fichier électoral ñu ñuy sonal bu ñu waxee ah, parrainage bu ñu waxee parrainage ñu après ñu bëgg des fois ñu bëgg population bu wàcc leen xeexal mais des combats politiques ñoom nañ ko mëne effectivement parce que population bu muy soxla ay combats bu ndox di ñaar des combats sociaux duñ duñ si duñ si dégg politicien effectivement duñu si dégg muy ñi nekk si gouvernement même même opposition duñu si dégg ñoom seen combat ñoom la ñuy liggante ay fichier électoral ay parrainage hmm. ñoom loolu la ñuy liggante quoi donc après léegi des fois ñoom bu ñu bu ñu soxlaa population wàcc keroog euh, bu ñuy voté euh, loolu loi bi euh, sur euh, suppression euh, premier ministre bi nañ population nañ jël mais ban population muy jël loolu c'est un combat politique ñom nañ ko nañ ko xeex quoi parce que bu population bi di soxla dëgg duñu ñen gis muy muy opposition bi ñom ñëpp ah, ay ñom Sonko ñom Idriss Seck bu population soxlaa dëgg duñu ñen gis mhm. donc c'est ça c'est ça le problème du pays quoi donc loo jeexalee ak rubrique bi balaa ñu jàll ci sport bi waaw bon xanaa su ma mën gis Macky Sall ne ko <laughs> balaa muy woote dialogue. Mm. na na na mooy président quoi. na mun naa wàccee boppam mm. yàlla def na tey moom la moom la moom la Sénégalais dénk mm, Sonko même bu nekkee dañuy bañ pourquoi pas moom mu yónni ay nit quoi ñu déplacé dem toog ak yi waxtaan parce que dëkk bi. ñoom ñëpp ñoo ko bokk. dëkk bi Macky Sall kese mënu ko kanam Idrissa Seck kese mënu ko jëmale kanam. donc dañoo soxla ñoom ñëpp. pour lu jëmale kanam dëkk bi. ñoom tam nañu xam grandeur bu président wootee tamit. ñu wàccee seen bopp quoi. dañu ay président ay affaire yi tam bàyyi yenn conditions yi mais aussi tamit day xaw a parce que moom it politicien la Macky Sall mu mën a wax politicien la lu mu projet si côté politique da koy def. donc mu xaw wàccee boppam parce que gars yi ñuy yaakaar bu ñu nax. loolu la gars yi di tamit. loolu la gars yi di donc. waaw lardive bi Babacar Ndiaye doon wax nañ nañ waxtaan nañ waxtaan trouver solution parce que ñoom ñëpp ay mag lañ ah mm-hmm. te gëm naa ne ñoom ñëpp intérêt Sénégal moo leen tax a jóg donc ñoom ñëpp intérêt Sénégal bu leen taxee jóg mm-hmm. bu ñu waxtaan mu nañ trouver solution bu am dialogue boo xam ne dañ toog ay mag njëm lañ quoi donc voilà donc on a la rubrique euh, actualité avec euh, Abdul Aziz Boyan. borom actualité voilà donc nous avons la rubrique sport euh, avec son coach et consultant Moustapha Sam Nous gën comme ci coach Tafa mu est coach adjoint l'académie de foot féminin bu Massar Nous Djamou donc nous ngi de passage le coach principal donc Mohamed Lamine voilà donc coach ñu démarré le foot local ak Espérance sportive bu Kër Massar nga xamante ne dafa football vendredi bi passé contre Yëmbal donc euh, ñu mu am défaite euh, vendredi bi passé té wacc ci classement moo nekkoon deuxième léegi troisième la ci voilà té benn journée mo def té victoire obligatoire la dernière journée pour mu espérer donc monter yow maanaam ban analyse ngay def par rapport ak euh, Espérance saison bi. bon voilà may def analyse damay nuyu de passage sama xarit sama doomu day Lamine coach Lamine bi nga xam ne.

sunu kii sunu équipe bu dëkk bi nga xam ne ñëpp ci war a jàpp képp kuy Massar waa te gëm ni Kër Massar ngay yeewoo donc da nga ci war a def sa loxo di nuyu de passage coach bi Cheikh Badji mi def liggéey bu mucc ay aussi donc man dama yaakaar ni rek euh, ba tey euh, coach bi mu ngi essayé di tenter pour pour parce que si nous rek monsieur pour dem tournoi monté c'est bon c'est facile c'est difficile mais pour moi c'est facile parce que amna équipe bi dafa am ay physiquement té ñu ngi am ay ay ak difficulté donc les euh, dirigeants yi ñu ngi ci bu donc lan mo ci des moy il faut que

Euh, espérance de Kër Massar nu ko am ci kaw ñu ñëpp ñu nekk benn. ci mhm. kaw aussi ñu ñu ñu taataan comme ni nga koy waxee. dialogue boobu noonu fële dañ koy delloosiwaat fii. Mhm. Kër Massar mhm. man loolu laay wax dialogue bu président de la République dañ koy delloosi Kër Massar. footballu Kër Massar nan lañ koy développé. nan lañ am ñu ko war a développé. il faut ñu retourner si ab bas âge bi. parce que mënoo xëy rek gis nga euh, bant bu woowee koŋ. mënoo ko jubbanti da nga koy damm mais xale yu ndaw yi la ñuy defar. politique bi loolu la. dañuy defar. Euh,

ñi euh, ñu am ci ay joueurs yoo xam ne ñuy ngi football première ligue. doo comprendre. ah mm-hmm. ña mën nga ci lim 30. Mm-hmm. am na ñaari tali. Mm-hmm. am na euh, Mbour Petite Côte. am na am na jaraaf. Mhm. am na sar bi ma daje fale euh, Kolda bu bu nekkoon port mooy Yankou te mu te mu doon garde fii Grand Médine waa waa football lañu fi waa ensemble voilà Yankou 2007 euh, voilà mu ngi mu ngi Stade Mbour mooy gardien Stade Mbour man ak moom ñoo joué ndoo ak Takender 2009 nawetaan euh, mais muy góor bu baax man da mm-hmm. man mm-hmm. man damaa jàpp ni Sénégal kooku moo fi dàq góor parce que dañoo dund loolu dañoo mm-hmm. bokk terrain bi da ngay tenter nu la neexee di dóor mais

Euh, wax naa ko benn jour benn débat bu ma nekkoon Espagne dafa toog lu yàgg mënul jël coupe du monde lu mm. coupe d'Europe mm. mais laa xam lu mu def mm. dafa dem créer ay Sarri dafa dem créer ay Iniesta dafa dem créer dafa dem créer voilà gis nga ñoom dañ leen a de football defar leen jàngal leen football. te déjà ñooñu demoon nañu gagné nañu coupe du monde euh, junior deux mille deux mille contre Mali. Mm. ak lu Seydou Keita. voilà Xavi nekkoon meilleur joueur. meilleur joueur boobu presque boo xoolee moo gagné waat euh, kii bi. coupe d'Europe bi gagné coupe monde bi. effectivement te ci ay voilà xamul la parce équipe ba dafa huilé mm-hmm. ñoom loolu ñu loolu noonu ñu am noonu mm-hmm. ñëpp dinaa non seen équipe yi boobu ñu koy togg dix ans si ginnaaw dix ans yooyu noonu nag mm-hmm. ñun di ko jar parce que fii xale yi suñu xale yi fii danga leen di orienté rek ñu mel ni ay ay jinne parce que don la ñu am sérieusement don la ñu am donc loolu noonu

bon tout d' abord ah kii balaa muy rebondir si lu ma wax di nuyu encadrement équipe bi parce que gis naa coono yi ñu def quoi di nuyu de passage stand ko ngeen ko jàpp temps yi moo tax mu daw <laughs> parce que man maa si biir mm-hmm. mm-hmm. ko waxee autorité yi mm-hmm. si équipe ko waxee nu AS Pikine men ko ay ñoom Jaraaf men ko ay Casa men ko Keur Massar mën na ko am parce que am nañ population benn

ñëwuñu en cent pour cent mm-hmm. mais ñu ngi sàcc di daw ñëw seetaan si li manqué mooy li la wax sànq mm-hmm. mooy suñu homme politique yi mm-hmm. autorité yi nekk Kër Massar ñoom ñëpp ah waxuma man waxuma kii bàyyi kee ñoom ñëpp képp ku si yoon ndombal tànk tey te mu leer na ni Kër Massar moo tax ñu jox la ko war nga mën a delloo njukkal loolu waa Kër Massar delloo njukkal bi mooy sport dafa dundal suñu gox. ñun je jeunes yi ñu yor léegi ñu bari ñu ngi bàyyi jàng pour football. ñoom day bokk si bu ñu wax valeur la quoi. parce que ku nekk si système éducatif bu ñëwee si sport mun nañ ko encadré. comme ñoom coach lu ñuy def. encadré booy tey man je pense que tey bu sa doom demul école. mu ne la maa dem terrain di nga xam ni bu demee terrain mu si ay yu baax. parce que dafa fekk ay un encadrer te ko quoi donc nous comme dès dès ça wax rek lolu éducation la sport éducation donc ne si autorité yi jàpp muy ñi nekk Massar ak même même bu amé ay la ñu di di dégg aussi mais est ce que organisationnellement aussi est ce que dara parce que gis tali club navétane la mais actuellement tay ji am boutique. ñu bari léegi di roy fi ñoom ci par rapport ak loolu am aussi ay sponsor est-ce que loolu tamit euh, dirigeant aussi waroon maanaam euh, dox loolu aussi pour xool tamit ndax loolu mën na attirer aussi maanaam euh, ay investisseurs wala tam dina yokk aussi maanaam visibilité club bi aussi ci population massaroise war nga dëgg war nga dëgg loolu gars yi ñu ci doon xalaat mm-hmm. te lu am solo la parce ren bi ñuy soog a démarrer boo xoolee blouson yu bari yi ngay gis Kër Massar ñu koy sol ñu bind si Espérance sportive de Kër Massar yu vert blanc yoy non dañ ko doon jaay han ah, dañ ko doon jaay ñu ngi ko déposé won ci ben ben boutique bo xam ne bi euh, daf leen doon jaayal yooyu bu ñu paree tombé yi ñu ci am mën ci def seen ay regroupement genre seen déplacement mais euh, du war na mën a gën a yaatu war na mën a ëpp loolu parce que man dafa am benn club rek bu may teg suma bët boo xam ne dama jàpp ni Sénégal moo fi organisé wu mooy génération foot ñii de ñëpp dañuy tànte comme dañuy tànte ba tey ñoom fi ñu àgg ba ñu leen di tudd ñu mën nañ àgg foofu mhm. comprendre génération foot daal laa xam ne ñun balaa ñu ko doon dab tey dinañ am problème yooyu parce que amuñu réellement les moyens amuñu ko sérieusement mais club yi ci des amul jaraaf amul ñaari euh, euh, tali parce que ñaari tali mm-hmm. Kër Massar mën na mën na ko juróom. ñaari tali Kër Massar man na mën na ko jur juraat parce que Kër Massar euh, bul fàtte ni man suma maam bi jur sama yaay fii la juddoo te bi muy décédé am na cent deux ans. Mm-hmm. kon Kër Massar mérité na mu am lu raw. Mm-hmm. club bu mel ah mais fo xamna fi fii dafa dafa yag, nekk am ay at mérité na mu am ay dirigeants yo xamna ne yi digne de son nom quoi donc si côté sport bi surtout si benen côté ak benen côté té côté sport bi am nañ dirigeants yi parce que ñom incendie jox ma nga ñuy de passage ñooñu dañuy dañuy dañuy xar seen tànk lu bay fu nekk lu nekk la ñuy def mais lu ne la ñuy def pour pour que pour que Kër Massar football bi ñu mën leen dégg ñun entraîneur yu ndaw ndaw ndaw yi fi nekk ni Hein? de nous encourager chaque jour. Nous nous voulons aussi caler le gay. Mais quand tu mets les manos aussi, donc ça nous voilà parce que il faut le finir pour le. Du moment le ken, ken on connaît que dans qui voilà, def ce ce ce ce lochon. Moi, dis bah vous que Euh, journaliste yi mm-hmm. fexeel ba club bi ñu koy dégg comprendre nga si say yëngu-yëngu man mi nekk entraîneur naa fexe ba su ma demee entraînement jour bi di ko développé mm-hmm. ba buy football ñëpp di ni kii mu ngi man kay nee naa instant bi dama ko réservé sama maillot sama maillot incha allah <laughs> sama blouson ñëw donc at loolu yokk par rapport balaa ñu jàll ci waaw bon je pense je pense que wax nañu lépp ah mhm. xanaa di lantaat appel autorité nañ ñëw si club bi rek mhm. à chaque fois appel boobu la ñu am quoi parce que lépp am na fi mhm. moyen kese moo ñu manqué donc moyen ñoom la ko yàlla dénk nañ ñëw jàppale gars yi quoi voilà donc euh, ñu ngi souhaité bonne chance Espérance sportive bu Kër Massar ci prochaine sortie am donc voilà allah dañuy gagné te dañuy bokk ci play off yi donc euh, effectivement ñu monté donc ñu ñëwaat ci sport coach ak remise drapeau national au euh, Lyonceau U20 les poulets de Youssouf Dabo Nous sommes les ñoo vice champion d'Afrique fële ci coupe d'Afrique bu Niger donc ministre Matarba jox leen euh, drapeau bi pour coupe du monde pour la am en Pologne euh, catégorie U23 ça sera du 23 mai au 15 juin foofu ca Pologne Sénégal bokk ci poule B ak le pays hôte Pologne moy Colombie ak Tahiti donc ñu gis aussi que ministre bi aussi gagner cette compétition est possible et ma profonde euh, conviction est que vous pouvez réaliser cet objectif car il ne faut pas se faire des limites Donc, le Matar Ba wax donc yow vie qualité yi xale yi wane ci Coupe d'Afrique bi les ay spécialistes yi yeneen carrément bii sax moo bar a baax ci ñaari génération est-ce que les nga ni ils peuvent aller au bout wala est-ce que au moins ils nañu aller au dernier quart ci mondial bi problème bi. xam nga lu tax ma gëm loolu. Mm-hmm. damay ñëw ci li ma la waxoon sànq. que euh, Sénégal. Mm-hmm. Euh, dafa am formateurs. Mm-hmm. Euh, formateur yi ñoom am da lay jaaxal trop jékki-jékki nga gis booy wax Sadio Mané nii mhm. am na ñu ko gën a garaaw mhm. ñoo xam ne ñii seen performance du wàcc mukk mhm.

entraîneur bi. Euh, Youssouf Dabo non non pas Youssouf Dabo. Hervé euh, er, Renard Hervé Renard. Mm, laak Sénégal. Mhm. ñëpp Renard moom moom dafa yàgg. waaw Sénégal il a fait des pieds et des mains vraiment pour être. ñëpp <laughs> jaxlé ñëpp jaxlé mu bàyyi fi Égypte bàyyi fi Cameroun bàyyi fi ñëpp pourquoi Sénégal mhm. question bi loolu mu né parce que xamna ni liñu yor mhm. duma wax waxu Afrique mais bu tubaab yi nelawee une minute mo indi coupe d'on coupe du monde bi Afrique parce que te mu ko teg ci petite catégorie bi donc suñu petite catégorie bi mën a jël leneen lu dul coupe du monde bi ñu dem mm-hmm. donc encouragement bi euh, monsieur le ministre wax mm-hmm. dama ci ànd bu baax a baax et puis moom tamit di ko féliciter si liggéey bu muy def moom monsieur parce que déjà am na continuité. waaw trois fois le Sénégal dem coupe du monde nekk trois fois champion d'Afrique. waaw loolu yaakaar naa war na. c'est quelque chose Donc, donte gagné wuñu coupe parce que ñun loolu li ñu gën loon mooy ñu indi coupe bi. non loolu c'est quelque chose mm. parce que fini, nii tey ba mooy li ma doon wax tey bu fekkoon ni ñun am club bi ñu war a am. Mm. donc bu ñuy sélectionné ñun Kër Massar nañ ci am benn doom. Mm. bu dem si coupe du monde boobu. donc am nañ ba tey ni yaakaar ne ñun lu dul coupe du monde bi sax mën nañ ci bokk. Mm-hmm. parce que sérieusement am nañ euh, équipe boo xam ne bii mën na jouer ci compétition boobu. mais Aziz euh, ñi wax euh, ni bi moo gën a baax bu 2015 2015 ak ñoom Ibou Sy mm-hmm. ñoom Moussa Wagué Moussa na ñaar def na 2015 def na 2017 mm-hmm. ak bi waaw en vue de ce comme lu coach si wax rek monde man coupe du monde bi paase la ma gëmoon Sénégal mun na ko jël. Mhm.

tuuti tuuti tuuti rationalisme day am des fois sénégalais mm-hmm. affaire yu gars yi di wax. mais mm-hmm. mais gëm naa ni Sénégal. Mm-hmm. bu ñu boolee xol yi ñun ñëpp. Sénégal wax ma ay coupe d'Afrique ay ay coupe du monde U23 même coupe du monde mën na ko jël. am nañ potentialité am lepp lépp gagné ko. Mhm. donc peut-être sans tuuti mon ñu ak zone yi xaw a jom nak tuuti ah. Mhm. voilà ah, donc coach de hein. waaw donc coach 2015 gis nañu ni demoon nañu dernier carré yi Brésil éliminé ñu donc mo ñom Ibou Sy ak ñoom Moussa Wagué ci première euh kii am participation deuxième bi ñu gis aussi ñom Krépin diata def mu CAN bu baax def mondial mais ñom huitième ci finale yaaka na lañ tombé donc est ce que gis na ni boy tamit ñom tamit euh, voilà dañuy franchir palier boobu. non dañuy dama yaakaar ni war nañ ko mëna war nañ ko mëna jall parce que su fekkee ni euh, dirigeants yi ñu ngi def li ñu war a def parce que soo xoolee soo euh, yooyu compétition soo si participer euh, FIFA rek déjà dafay am lu muy décaissé. Mhm. pour pour dëkk benn benn équipe rek mhm. benn équipe la état di jël en charge. Mhm. mooy équipe nationale ah, bi nga xam ne bii mooy mooy mooy équipe A boobu état mu ko jël en charge si ay déplacement am si yu bari mais petite catégorie fu ñuy jóg rek FIFA day jóg kon pour wax la ni tubaab dafa respecter xalé mhm. dafa xam ne xale amul doole. Mhm. dafa xam ne xale dafa dafa bëgg du triser. motax mhm. mo mo jël ay ay ay ay moyens di ci def pour que ñom ñu mëna ki lan motax mëna ñu jall fofu c'est parce que équipe bi baax na. équipe bi en continuité bi mu am ni baax na. donc gis nañu punch bu ñu ne doolé doole. voilà kan bi.

au bout de l'effort euh, propos de coach Moustapha Sarr voilà donc nous avons ci sport international pour djahal donc euh, avec Premier League donc euh, Manchester City gagné Brighton 4 buts à 1 ci dernière journée donc conservé un titre Liverpool pour Sadio gagné 2-0 Wolverhampton doublé de mais voilà malgré tout City xam na ni lii rek moo donc gagné le titre mais coach la performance City bobu ak aussi Liverpool nga xamante donc comme Dortmund la ñaari équipe yo xamante ne def saison bu flamboyante mais malgré tout ñu voilà wara ñak championnat bi. ok waaw boo xoolee ñoom ñaar ngay tekkale rek. parce mhm. que euh, Liverpool dañu am départ bu baax. Mhm. ñu dem ba ci biir xamna naa. Mhm. mu am problème groupe. Mm, problème bi mooy ñenn ñi ñu doon pressé genre ñuy niil di am ay match nul yu bari. parce que si moo rawee woon City 7 points ci boxing day bi. donc le 3 janvier ñu daje City gagné ko ñu mat ba 4 points. 4 points voilà donc boo xoolee aussi ñaari match ni li ngay wax noonu mooy contre West Ham. ak contre Leicester. faut que am na ñu ne tamit est-ce tamit du Klopp lu mu doon tourné di la ay Lallana di indi ay Shaqiri te Guardiola mu ngi doon équipe am te moom mu ngi doon bon tamit du loolu. bon ñaari ñaari ñaari caractère entraîneur bokkuñu parce que euh, Klopp. Mm-hmm. moom day day day fexe ba équipe bi yëpp. Mm-hmm.

dara teewul donc euh, Guardiola nak jour bu paree rek la mën yor mhm. looloo tax mu mën am équipe mel mhm. noonu donc mhm. moom à chaque fois championnat bi li ci objectif am jël ko rek donc moom mu ñàkk ko jël moom mooy nekk échec am effectivement par rapport au club club day jéem a effectivement day jéem a jour bi en même temps voilà day jéem a day jéem a club bi donc euh, euh, xana di wax di encourager encouragé ay Sadio Mané ak ñeneen ak ñeneen pour que nous avons avenir parce que mm-hmm. problème performance aussi Sadio franchement comme avec 22 buts ak Aubameyang donc trois africains meilleurs buteurs championnat Angleterre gabonais Mohamed Salah égyptien Sadio sénégalais donc euh, battre euh, un record drop bi en 2010 à 21 donc mon à 22 buts. voilà voilà donc Aziz nous gis aussi que euh, Nico ko Waly Ndourné ben ñaari équipe mo def champion boxing day mhm. championnat Liverpool def nako ko ñaari bi troisième fois mhm. Liverpool nek champion en janvier voilà en décembre Il mhm. championnat Liverpool championnat xolé amna 97 points amna 30 victoires am euh, benn défaite am sept match nul fii ci am 32 victoires mm. am 3 défaites mm. am 3 matchs nul donc est-ce que différence maanaam du foofu quoi ci match nul yi. waaw bon comme Louga di nga semaine bi moom man damay ne foofu moom foofu dañu nekkoon aux ans, quoi mm. boo jëlee match Ligue des champions nous mu demee woon nga nga championnat bi quoi. championnat Angleterre pratiquement moom la ñëpp lu ëpp lu ñuy suivre. effectivement man fu may wax différence bi la comme coach la mu ngi wax sànq si si euh, effectif bi. Mm-hmm pour man City lu mu championnat. Mhm. mooy effectif pour riche la ci la bokk waaw. effectif bu riche. Mhm. parce que même bu amé bo xolé si ñi toog si banc ay ñom Mahrez. Mhm. ñeneen ñi toog si banc ñoom Leroy Sané ñoom Leroy Sané ñoom ñoom Kevin De Bruyne. voilà football bariwul. voilà donc fofu donc différence bi foofu kese la quoi pour man différence bi foofu la City gagné championnat bi. depuis championnat bi la loolu laa wax City day gagné championnat parce que dafa am effectif bo xamné ne. City mën na teg ñaari onze. mas pour sax mas mën na teg ñaari onze voilà. bon par contre Liverpool bo génnee Salah Mané Salah ak euh, Firmino ñoom Origi ngay am gars yoo bon ils sont un peu bon bien vrai que gis nañu Origi moo la si mm, mais effectivement yi effectif bu riche gagné championnat. effectivement waaw pour pour gàttal quoi. je pense que pour pour pour dëgg sax li mu parce que boo xoolee euh, Manchester United teg leen na fi ay yoonu yoon di jël championnat. Mm-hmm. Mm-hmm. mais gars yi xam tu euh, tubaab dafa sopp pour xamoon secret réellement mm-hmm. Manchester United dañu dem dëpp micro. Euh, Sir Alex Ferguson ne ko lan mooy sa secret réellement mu championnat Angleterre ñu ngi koy joué si boxing day.

donc nga carrément que vraiment c'était comme ni pour confirmer li nga wax effectif bi nga wax niveau euh, voilà donc Liverpool pour est-ce que amul ay donc euh, ci saison bi parce que c'est vrai que ça Mané jël nek na meilleur buteur Trent Alexander-Arnold euh, bat na record Legion en devenant défenseur bu voilà donc extraordinaire un jeune de 20 ans est-ce que malgré tout amuñu ay regret cette saison de Liverpool. championnat non je Liverpool mën nañu am regret parce que depuis 90 nous sommes woon championnat. depuis 90. 29 ans yàgg voilà yàgg na quoi. donc mais ce qui est grave,

am entraîneur bu bu niveau mm-hmm. aussi hein. mm-hmm. donc regret bi lenn que depuis 30 euh, euh, ah, ans il y a ans mm-hmm. trophée am. dina metti mais ñom so leen deux ans yi lu melni Barça lu Real parce que Liverpool euh, adversaire de taille ay Barça Real Madrid comme Ajax ni loolu mooy. Mm-hmm. loolu mooy affaire bi pour man amul mm-hmm. regret bu bu mm-hmm. garaaw boobu. mais nag soxla nañ ko. pour dundalaat. encore une fois nous sommes gox ba ñu parce que nous noonu la ñuy dundee football nous mhm. mhm. gisee boo leen gagné même pour nous nii lee dañuy mhm. joy, waaw donc beaucoup boo xoolee aussi si mentalité anglaise rek ñoom les champion moo la champion anglaise moo la gënal même pour du monde ñoom loolu loolu la nous gëm nous dañoo am fierté ci seen bopp ñu gis aussi que comme nous coach waxee mais est ce que tamit li sur le U20 yi mbaa aussi du maladie seen bopp tamit moo la Liverpool parce que 2014 nekkoon na premier ba avant dernière journée Gérard glissé dem ko baa dem dugal ñu ñàkk championnat nous ñu aussi ren aussi que voilà rawe na si 7 points

macha allah quoi. voilà donc coach pour jeexal euh, rubrique bi léegi euh, ak euh, académie bi tant que ñu ngi koy wax ci présentation bi donc ñu ci weeru koor est ce que da ngeen ak lan ngeen di waajal aussi quoi après voilà prochaine étape bi ci académie bi. waaw académie bi dañoo defoon pause loolu loolu doyen bi waxoon coach Lami. Mm-hmm. danañu woon nañu may booy ba ñu am comme ni ko Aziz waxee sànq ba ñu am rythme bu normal parce que weeru koor.

yenn mhm. jàppal bàyyi. effectivement yooyu comme ni gars yi mhm. waxee. ñun mhm. amuñu benn problème parce que mën nañu football. mais nañu bàyyi ñaaw xalaat yee genre xalaat bu ñaawee rek duñ mun dem fenn. waaw loolu mooy lu may lu may lancer pour sénégalais yi beneen bi mooy euh, suñu.

que ñu ñëw jàpp si mhm. parce que mën mooy suñu doole waa suñu ci jàppul tamit dañu nekk sambalaar parce que dañu génn dem jàpp ci yëfu jàmm. alors que am nañ loo xam ne li ñun ñëpp mën nañ ko bokk mën nañ ci def ku si nekk eh, wàllam pour que Kër Massar mën a mhm. sigi si kanam. donc di leen jaajëfal si invitation bi yow tamit mhm. kontaan naa trop. Euh, bu la neexoon xam nga ah, ñeneen nañu fi aussi ñu invité leen parce que am ñu xam-xam bi wala ñaan yooyu mais. alhamdulilah daal ok donc jërëjëf euh, coach Tafa ak mm. encadrement technique bi yëpp maa ngi di mm. voilà nuyu voilà donc euh, lii a nekkoon une première partie tey euh, émission à ak dîner donc ñu dañuy marqué benn pause bu ndaw rek dugal sunu coach en développement personnel muy Soxna Khadika mu waxtaan ñun ci livre Don Miguel Ruiz que votre parole soit impeccable ci deux